ñu bëri ils l'ont pas euh, compris euh, ñàkkul que ne le président il avait d'autres projets wala amoon yeneen nit yu mu bëggoon a kii mais euh, dafay poser dafay tax ñu poser une question mooy tey jii nii au Sénégal ban place la ñi nga xam ne jàpp nañ ne il font bien leur travail am ci li nga xam ne mooy l'administration sénégalaise mais également les conséquences par rapport ak jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy gis ñu bëri jàpp ne y a pas l'homme qu'il faut à la jamono ji waaw euh, bi ma fay jógee bi ñu may nommé direction de la solde kenn tàgguwu ma mhm. dama xëy ngoon jot ñu woo ma ne ma dañu la nommé directeur de la solde kenn consulté wu ma ci dara mhm. euh, lu tax ñu nommé la ñu ne dañu bëgg nga defaraatal ñu direction de la solde mais euh, waroo fa sax yàgg boo defee deux ans rek baax na bu ko defee nga jubantul ñu solde parce que bari na corruption bari na ay jafe-jafe bari na tamit loo xam ne nit ñi dañ koy joytu ci yéexaayu fayu rappel yi mm-hmm. enseignants yi mais it direction la boo xam ne ci wàllu informatique dafa xaw a tardé li ñu bëgg mooy nga saytul lan moo fa doxul nga fexe ba jubanti ko Euh, loolu yaakaar naa buñ ko defee en deux ans mën nga dem gis feneen loolu c'était le le 19 avril 2017. Mm -hmm. bon man it euh, bi ma demee ma saytu direction bi xool vraiment jafe-jafe yi nekkoon na jafe-jafe yu rëy. Euh, jafe-jafe yoo xam ne yaakaar ñu woon ne sax ci giiru dund doomu aadama lii mën na nekk mais ñu noppi consulter ñu war a tàmbali liggéey bi. Euh, liggéey aussi bu ñu ko tàmbalee euh, dafa àndoon nag ay mesures. Mm-hmm. mesures yoo xam ne benn yaa ne képp koo xam ne sa loxo dafa takk ci mbir bi mënatoo bokk ci biir direction bi. Mm-hmm. ñooñu dañ leen euh, vraiment sapi ci sutura. Mm-hmm. da leen vraiment ñu dem xooli feneen wala ñu dem wuti leen loo xam ne méngoo nag li ñu li ñu bëgg. mais comme dañu bëgg setal béréb bi mënuñu considérer nit di fayeeku rappel nga koy laaj 10 pour cent. naan ko da nga ma war a jox ci li ngay fayeeku ba pare ñi lay bàyyi ci béréb bi. loolu yëpp amoon na solde. waaw loolu amoon na solde ñooñu aussi ñu identifier leen. vraiment euh, seppi leen euh, euh, commencé liggéey ñi nga xam ne bëgg nañu jubal. Mhm. beneen bi aussi fi ñu daan recevoir nit ñi dafa xawoon doy waar parce que nit ñi dañ daan toog ci couloir yi di xaar nit genn nga dugg loolu bokkul ci normal travailleur état. Mhm. doomu aadama sax lay wax. ñu aménager li ñuy wax benn front office vraiment comme li ñuy gis ci banque yi ay file d'attente yeeg yépp euh, nga toog euh, xaar sa tour ñëw ñu jox la euh, sa sa sa li nga soxla bu ko defee boo kontaanee baax na boo kontaanul aussi ah nga continuer wat di réclamer wat mm-hmm. li ñuy wax naan front office espace public d'accueil yi fexoon nañu aussi ba yóbbu ci région yi compétence solde service yi nga xam ne ñu ngi ci état comme contrôle régional des finances nekkal fa ministère des finances direction générale du budget fexe nañu ba former leen ñu commencé di jël en charge compétence su sand au niveau euh, régional mm-hmm. bu ko defee euh, ñu ci bari nga xam ne dañ daan jógee Kédougou jóge Saint-Louis ñëw ba dakaar soxlaatuñu woon ci wàllum euh, dépôt extrait de naissance pour allocation familiale acte de mariage ñëw ba dakaar ak yeneen aussi soxla comme tirage bulletin ki mhm. euh, fexe nañu it ba ci wàll bi nga xam ne moo gënoon soxal euh, nit ñi mooy wàll bulletin bulletin da nga naan toog 3 mois doo ko gis wala nga toog 6 mois doo ko gis ñu bëri sax laajatuñu woon bulletin parce que dañu naan bulletin yi amatul woon njëriñ mhm. euh, ñu fexe it ak ay suñuy naataango collaborateurs yu xariñ au passage maa ngi leen di nuy leen remercier fexe ba teg projet i solde projet ISRA la teg ko nag xawoon na jafe ndaxte bañ ko tegee ba ci biir am na ci ñoo xam ne euh, vraiment dañ ci opposé wu. Mm-hmm. lu tax ñu ne parce que am na ñoo xam ne seen liggéey ci wàllu tirage bulletin la te bu ñu dématérialisé duñ ci gis seen bopp. duñ ci gis seen bopp bon ma leen de Sénégal demewul noonu. Mm-hmm. Sénégal da ngay xool ñi gën a néew doole ñi nga xam ne dañuy sol pour jet dara. Mm-hmm. nga fexe ba yombalal leen ko. parce que état dafa am ay principe principe adaptabilité. principe yoo xam ne aussi continuité principe yoo xam ne da nga ko war a di di firndeel ci sa biir liggéey ba donc mm-hmm. état dafa war a ndax bu ngeen nekkee cent soixante mille agents de l' état loolu ay dépenses yu rëy la état ay milliards la ciy dépensé ci wàllu licence informatique euh, ci wàllu charge photocopieuse euh, carburant bi ngay jënd pour transport yóbbu bulletin ay Kolda ay Ziguinchor loolu dafa dafa nekk ay charge yoo xam ne Euh, état dafa dafa diisoon ci moom. Mhm. ñu ne il faut ñu jënd charge yooyu ci état mais il faut aussi ñu yombalal travailleurs yi li nga xam ne vraiment euh, seen droit la. mais toutes ces réformes dérangeaient certaines personnes. waaw mooy li may wax ni dama ne am na ñoo xam ne dañu naan imprimerie bi. am na loo xam ne boo ko boo ko dématérialisé dootu ko arrangé. Mhm. ma ne ko ñun newuñu dañuy wàññi liggéey nit. imprimerie buy tiire bulletin baax na. mais euh, yaakaar naa du loolu rek moo war a alimenter marché imprimerie am na mm. yeneen marché nañu xool coono bi nga xam ne moom la travailleur di daj parce que kuy euh, jóge ci béréb liggéeykaay nga tëj ko fekk nga yor euh, poste de santé wala nga yor école nga tëj ko pour dem wuti bulletin Kaolack wala saint mm. loolu aussi yaa ngi amel ak ñi nga xam ne dañuy ñëw faju si wala mm. élèves yi wala sax parents d'élèves yi loo tax ñu ne dañuy fexe ba mbir mi léegi ñu def ko ci benn application bu ñu tuddee e-sol mais blocage bi yàgg na yàggul parce que bloqué nañu pendant quelque temps mais après bi Covid bi ñëwee vraiment yàlla atte na mhm. ndax Covid bu mu ñëwee kenn talatul kayit dañu interdit sax mhm. ci la nag application bi daal di jëlee envolé ñëpp di ko laaj. Ah, mais ce qu'on ne comprend pas mooy malgré tout ce travail abattu malgré les réformes yi nga xam ne entreprendre nga ko fa même si ça dérange certaines personnes du jour au lendemain ñu xëy yëg ne relevé nañ la dëgg la nag euh, moomoo loolu parce que président mooy xool ku ko mu fal ku ko mu wàcce te du la tàggu comme ni nga ko waxee bi ngay door mais euh, xëy na après la suite. mooy que ne dafa am benn écart sa diggante ak ñi nga xam ne ñooy les gouvernants euh, ceux qui dirigent le pays da ngeen nekkoon en collaboration ci wàllum politique moo tax on s'est posé des questions pour xam qu'est-ce qui s'est passé réellement waaw man ba fi may wax ak yow nii mënu ma li moo xew ma daal xëy na ñu nommé ma 19 avril 2017 26 <laughs> avril ma jël service le mais ñu ne ma da ngay dem te kilifa bu fa nekkoon ministre des finances euh, daf ma ne rek defoo dara mais da nga war a dem man it ma woo ko jotuma ko ma envoyé ko message ne ko yal na la yàlla gunge. Mhm. c'est notre dernier échange. amul leneen échange lu ñu ci teg. échangé wu mag ni président ni ministre ni personne. c'est comme ça que ça s'est passé. c'est comme ça que ça s'est passé. ba ñu demee ba ci biir aussi waat nañ ma ne ma pour ñu pas ma la déret. ah ils ont, ils ont ils ont encore fait appel à vous. pour autre chose woo nañ ma woo nañ ma pour voilà dañu bëggoon nga dellu si parce que après aussi. quelque temps de réflexion dama démissionner de Benno euh, créer euh, coalition. mais justement qu'est-ce qui a poussé a ah. à cette démission. Ah, alors démission bi li ko waral bari na parce que dama ne li ma waroon liggéey liggéey naa ko euh, ñaareel bi aussi dama gisoon ne ñi xam ne tey dañu téye nguur bi fi ñu doon joxoñ du foofu. parce que hmm. population da nga koy dëkk. Hmm. da nga koy yëram da koy taxaw. c'est important. da ngay aussi privilégier intérêt général sur l'intérêt du parti. parce que doguma la mais li ma jàng ci li nga njëkk wax mooy que ne euh, am na une minorité boo xam ne réforme yi arrangé wu ko woon te loolu solde lañ ko gis mais c'est presque partout au Sénégal. waaw euh, moom laa wax ne ma ne da ngay privilégier mhm. intérêt général sur l'intérêt du parti. boo nekkee ci béréb liggéeyukaay ngay assumer charge publique waratoo xool intérêt du parti. Mhm. da ngay xool intérêt population yi. te man ci sama cadre liggéey loolu rek laa mos a xool xooluma ndax diw dafa nekk ci parti d'opposition wala parti au dama naan nit loo ko war a fay fay ko ko ndax akam la mhm. doo fa nekk aussi ne parti bi laa fa nekkal ku ñëw rek ma dugalal la lépp li nga bëgg boo ko defee da ngay jalgati yi euh, man je suis originaire de Thiès dama yàgg di wax agent ne bu nekkoon chaque mois dañuy xool ñu dëkk Thiès rek la ñuy fay kon kenn du fayeku mhm. république du demee noonu da ngeen di bokk yëf yi da ngay bokk yemale république aussi da ngay xool lan mooy intérêt population yi nga jiital ko ci sa liggéey loolu mooy tax mentalité yi di évoluer mm-hmm. euh, pour ñëwaat ci li tax ñu créer ëllëgu Sénégal du loo xam ne man maa ko bëgg mais ay nit ñu jóge ci yëpp bépp bérébu Sénégal ñoo tax doo ñu bëgg nga fondé ëllëgu Sénégal coalition boo xam ne ay citoyen ñoo ci nekk ñu jiital la ci mhm. mais dañu bëgg aussi nga jël say responsabilité ndax nangu ngaa démissionné de Benno ma ne koy euh, leen ma réfléchir ba ma koy aussi ci ñaari weer man leen je suis mhm. euh, donc euh, ma démissionné de Benno Bokk Yaakaar ñu créé ëllëgu Sénégal. léegi ëllëgu Sénégal ëllëgu ko créé aussi. ñu annoncé suñu candidature. le 7 août 2022. Mm-hmm. mais li gën a tax en fait ma d'accord ci loolu parce que dama joto dox biir Sénégal te li ñu fi gis ci tumuranke ci jafe-jafe yi ci abandon moral économique et social ak manque de prise de responsabilité dafa jéggi tey te ma ne loolu projet bi mel noonu boo bëggee changé positivement une société une population. Mm-hmm. il faut que nga nangu diriger. projet national. impliqué wu te ëllëgu Sénégal c'est un projet national. te ñi ma ci nekkaloon aussi dama leen jox cër bi nga xam ne ñi nekk ci nguur bi waat ma aussi mën na leen mënatul nekk. Mhm. lu tax ndaxte ñii dama leen jox cër dañ mu woo dama naa taxaw vraiment suñu yenn mbokk sénégalais yi ma nangu loolu. Euh, nekkuma woon aussi bennoo pour ay poste mhm. d'ailleurs amul benn kilifa benn nit ku mës a taxaw ne Charles Émile Abdou Ciss yónni na ma ci président wala dem na ne pour ma moo wut poste musul am nomination dafa ma mus bett ñenn sax dañ la koy forcer mm-hmm. parce que bi ñu may dama directeur informatique j'étais dans un projet de la banque mondiale ñu ne ma ah décision bi daf ñu rëcc nga baal ñu ak kaay mettre ñu en place direction informatique moo tax aussi bi ma ci génnee dama sant yàlla mm-hmm. parce que loo musul wut mu tàbbi sa loxo boo ci liggéeyee ba am ci ngërëm sant yàlla